ñoo ngi rafetlu sa laaj bi euh, di xamal ni tamit aussi camp de vacances bi njariñ bi mu am sax xeyna dafa jéggi dayo même ñun sax bi ñu tegee xalaat bi ba teg ko ci lañuy gën a dem di xam ne lii njariñ bi sax jéggi na dayo parce que camp de vacances bi boo xoolee ñun Sénégal sunu njàng nañ ko tëggee dafa fekk ne nit ki dina def ay ati at lu ëpp ci at mi te tamit ay ati at pour sax muy doog a mën a am bac te bac boobu noonu muy am su noppee du ko permettre pour moom mu mën a dem def dara moo tax nag comme ñun amaguñu dayoo wax élèves yi ni leen dem leen tey ngeen dem jàng ji métier pour ngeen mën a dem liggéey ji lu ñu xalaat mooy commence ci waxtu wi nga xamante ne élèves yi dematuñ école ñu saisir ñu daal di profiter ci occasion boobu pour mën leen a jàngalu métier moo waral ñu préféré ci durant vacance yi ñetti weer yooyu ñu xool nan la ñuy dajalee euh, élèves yi te dajale gi tamit dafay nekk ñi am bagak ñi amul bagak ñi nekk ci millier bi ñoom ñëpp ñu dajale leen pour mën leen a jàngal métier boo xamante ne day nekk ci wàllu nan lañuy ñuy installé kër nan lañuy ñuy installé euh, solaire nan lañuy ñuy defaree climatiseurs yi ak ak ak ak froid climatisation yi nan lañuy défé informatique ak tamit naka lay nit di def ci loolu lépp boo amee xam-xam bi pour nga mën ko transformer ba mu mën la indil alal ba mu mën la indil kom-kom donc loolu moo waral ñu dajale leen ci durant vacances yi nga xam ne comme élèves yi dañuy jàngi au lieu ñu leen di bàyyi ñoom tamit ñuy dem di def activité yoo xam te ne amul benn jeexit xam ne dina am dina leen amal njariñ ci seen wàllu dund ñu leen pour jàngal leen boobu noonu donc man li may wax mooy d'abord damay saisir sa occasion bi di remercier le président de la chambre des des métiers également moom mi nga xam te ne depuis bi école bi taxawee ba nag ne aussi tamit mi ngi ñuy jàppale di ñu encadrer di ñu tete di ñu wanu yoon mais par rapport ak certification boobu noonu ngay wax donc dama naan li ëpp solo ci certification mooy xam-xam ba nit ka am parce que bu ñu dee certifié dara bu ñu naan la am këyit wii de day wane ne xam nga lii ki am mbag par exemple su ñu ko dee jox këyitu bac boobu noonu dañ naan ko yow de jàng nga ba tolloog foo xam ne war nga am daraja ji mais pour man sax la ëpp solo du daraja ji du këyit ja mais la ëpp solo en réalité mooy xam-xam ba ne ca ba ndax xam boobu moo ko mën a jëriñ ba mu mën koo transformer en terme de revenu maanaam xam-xam bi moom la mën a jëfe pour mu mën cee am dara lu mu jariñoo donc li ëpp solo kon ci foofu mooy euh, xam-xam boobu noonu par rapport nag ak certification boobu ngay wax chambre de métier ci collaboration bi ñu am maanaam ci àndandoo bi ñu am pour former ndaw ñi ñoom tamit ñoom bu ñu paree ñooy certifié euh, jeunes yi ñoo leen di jox attestation boo xam ne aussi tamit moo leen di permettre ëllëg bu ñu bëggee par exemple seen carte professionnelle ci niveau chambre de métier mën nañ ko yóbbu pour ñu wan ni ñii def nañ lii kon xam na ko di firndeel xam-xam bi ñu am su ñu bëggee leneen kayit boo xam tamit certification bi am na dayooyu certifié ko tamit su boobaa tamit dinañ ko mën a am mais daal li ëpp solo mooy ñun dañuy dajale ay doomu aadama pour jàngal leen ñu am xam-xam xam-xam boo xam ne suba bu ñu génnee dinañ ko mën a jariñoo ci seen wàllu koom-koom te Kolda donc Kaolack Bignona Ndioum donc pour wax leen la rek nit ñi jóge nañ fu nekk ci Sénégal pour ñëw bokk ci camp de vacances bi loolu nag dafa am sax beneen responsabilité bu ñu joxaat dafa am beneen xalaat bu ñu joxaat parce que ñun it bañ koy commencé ñoo ngi doon jàpp ni ci li ñuy atteindre suñu objectif ci waa Thiès lay doon mais ñu gis ni am na ñeneen ñu nekk ci yeneen régions yi ñoom intéressé wu nañ comme lii looloo waral tamit ñun ñu gën a xool naka la ñuy defee benn régime internat avec nos maigres moyens fexe nañ ba wut foo xam te ne fa la ñuy loger euh, ndaw ñi ñëw donc fexe nan lañ leen di dundalee même su fekkee sax duñ ci am dara parce que lii problème mooy lancé nañ affaire bi am na ñeneen ñu ni bëgg nañ mais comme bëgg nañ rek ñun on sera obligé ñu jox leen opportunité yu leen di permettre pour ñu bëgg donc loolu tamit non lañ ko lancer naturellement ba yalla def ñom ñëpp tamit ñu ñëw te li it jox nañu xel pour que tamit ma utiliser occasion bi pour lancer ko que xel bi mu ñu joxaat moy ñun suñu paré ci camp de vacances bi dinañ organiser ben cercle de primo entrepreneur du Sénégal manam ndaw ñi nga xamanteni dañoo jog bëgg entreprendre bëgg a amum xëy te xamuñu nan lañuy jaar ñun dinañ fexé école bi dina def le tout pour encadrer leen jappalé leen ba ñu mëna amum xey ba ñom ñëpp ñu mëna entreprendre dans un domaine bo xam ne am nañ ci ay compétences inshallah allah. légui bon xam nga je veux pas parler trop d'une question politique mais gis nga so xolé Sénégal dafa am fu ñu nekkoon am fu ñuy waaj a di dem mais ñun ñëpp ñun xalé yëpp ñun jeune yëpp amna benn sensation buñ commencé am sentiment bobu moy ñun daf ñoo war fu ñu pour ñu liggéey dafa war ñu ñu lem suñu fo lu ñuy fowe ñu wàññi fo wàññi caaxaan jéem a tabax rew mi ñun ñëpp naturellement ke nga gëm ki nga gëm kele nañ waxante rek ñun ñëpp ci jeunesse bi actuellement loolu mo nekk ci suñu xel loolu tamit mo ñu animé ba ñun tamit ñu nit dinañ bay suñu wàll ci waar wi donc bay wàll gi ci waar bi nag weesuwul que caaxaan yi xale yi doon def ak yooyu yëpp temps bi ñu doon perdre dañ ko tek parce que nous sommes dans un pays très très sous-développé donc kon lu ñu war a def actuellement mooy xool naka la ñuy mën a jàngee naka la ñuy mën a wutee xam-xam naka la ñuy mën a liggéey donc au lieu que ñuy jël temps par exemple di ko fowee wala dara temps boobu noonu ñuy jaaxaane xëy na mën nañ ko jël ngir wut ci benn xam-xam boo xam ne suba moo ñuy jariñ donc soo xoolee camp de vacances bi ñun ni ñuy utiliser maanaam pexe yi ñuy utiliser wala wala wala technique xaw ma nan lañ koy waxee sax ci wolof déjà yi ñuy utiliser mooy technique yoo xam ne mooy li ñu naan approche par les compétences ñun li ñu soxla mooy mën-mën bi parce que en réalité langue bi da fay nek entrave ci ñun manam day nek entrave ci ñi nga xam ne dañuy ñëw ngir participer ci camp de vacances bi dafa nek sax entrave ci ñi nga xam dañuy nek di jang parce que français nekul langue bo xam te ne lañ namp donc ñun ay wolof yu leer nañ lañ xam kon it installer kër wala nga dem def maintenance su climatiseur wala nga dem installer ben système solaire mais soxla wo pour man français pour def ko ñun nak ci loolu lañ basé ba ne dinañ def lepp lu ñu mën langue bu ñu mën utiliser pour expliquer ko nit ki pour mu meuna comprendre dinañ ko jël pour que ñom ñëpp tamit buñ fi fiy ñu meuna am xam-xam bobu noonu parce que luñu intéressé rek mooy nañu mën liñuy ñuy def bu ñuy